tey dañu am mbégte lool di dalal madame la la directrice de l'agence yi toppatoo affaire bu construction yi ndax euh, état bu la santee liggéey da nga ciy daal di jublu ñun nag bi ñu déggee ne état bi euh, nouveau bachelier yi ci université publique yi la ñu jëm dañu daal di commencer fagaru ku nekk commencer di di joxe sa xalaat di seet naka la ñuy def ba mën a accueillir bachelier yi nga xam ne état bi dinañu ko dénk incha allah infrastructure yi nag moom blocage la ndax xam ngeen ne université wu Thiès dañu dañu tasaaroo ci biir Thiès euh, di di loué ay ay ay euh, ay kër ay taax ak kër di ci def nag liggéey bu rafet ma yaakaar ni incha allah bu ñu jotee infrastructure bi liggéey dina fi gën a rafet liggéey bi dina fi gën a rafet dinañu mën tam yokk euh, xale yi ñuy tàggat fii ndax suñu université bi li muy jàngale moom la réew mi soxla dafay jàngale science dafay jàngale technologie boole ci di jàngale science économique ak science sociale muy macha allah université boo xam ne li muy jàngale dafa complet nag euh, moo tax ma xam ne bu infrastructure yi buñ ci jotee mesure d'accompagnement yi ñu wax tam ñu mën a am yeneen jàngalekat am ay liggéeykat ci administration bi ba mu doy incha allah yaakaar naa ni yaakaar du tas. axankañ euh, axankañ moo tax vraiment infrastructure yi moom bi directrice ne fii léegi décembre daal yëpp mën na sotti daal mu mu mu mu yokkuñu euh, mu espoir yaakaar waaw suñu yaakaar daal tey moom kile na ko bu baax ndax décembre soreetul macha allah boobu ba tey ñu ngi xaar décembre moom quelque mois rek la ma xam ne nag li ñu jot a def ci. ci ci ba ba fii 2007 bi ñu créé université bi ba léegi yaakaar naa ne bu ñu jotee ci infrastructure yi dina yokk li ñu li ñu doon def boobu ba tey. oui j'ai accueilli avec enthousiasme la demande de la directrice de l'agence qui a voulu aujourd'hui être avec nous à, à Thiès pour que nous puissions ensemble avec toute la communauté de l'université de Thiès faire le point sur l'état d'avancement des, des travaux. Nous sommes une université publique, nous avons reçu la commande de l'État et donc c'est notre mission de nous mobiliser, ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir répondre à l'attente de l'État et accueillir les bacheliers qui seront orientés vers l'université de Thiès. Les infrastructures constituent un élément important pour nous aider à remplir cette mission et Madame la directrice nous a rassurés en nous disant que d'ici le mois de décembre, nous devrions pouvoir recevoir, sinon la totalité des locaux, du moins une bonne partie, et que la réception de ces locaux donc, nous permettra vraiment d'accomplir notre mission pédagogique. Et vous savez que l'université de Thiès est éparpillée à travers Thiès et nous occupons des locaux dont les loyers nous coûtent cher. Presque sur l'année, nous payons presque 100 millions. pour euh, les locaux que nous occupons. Et c'est pour cela que je dis que beaucoup de nos UFR font des miracles parce que dans des locaux qui sont quand même relativement étroits, ils réussissent à organiser des cours. Mais la, le fait de monter en puissance est nécessaire pour notre université. Et, et les, les, travaux avaient déjà été faits. Il y a des études pour euh, ouvrir et offrir de nouvelles filières. Donc c'est vraiment un moment, je pense, un tournant pour notre université que de monter en puissance, d'accueillir plus euh, d'étudiants et les infrastructures nous permettront, Inch'Allah, de le faire. Je pense que nous allons recevoir la, le, le, chiffre définitif euh, que, que l'État va bien vouloir euh, confier à l'université de de, de Thiès. Nous attendons également d'avoir la confirmation des mesures en termes de recrutement de personnel d'enseignement et de recherche et en termes de personnel administratif, technique et de, et de service. C'est à 4336 étudiants. Voilà. Pour euh, les, les six établissements, à peu près